Ngaye Vigna. Bongo. Tapal ma bii télé. du ma la yegg foofu la. À part moi, y a personne qui peut faire ça. Retrouvez DJ Kheucha du lundi au jeudi de 11h à 13h sur la 2STV. Les amis, les amis, quand on se réveille, c'est le bonheur. Quand on se réveille, l'envie reprend son cours. Bonjour à toutes et tous et bienvenue au Parc des Princes de la 2STV la télévision autrement la première chaîne privée du Sénégal mbokk yi ñu ngi leen di kontaane di leen béggee di leen siyaare bu baax a baax a baax où que vous soyez qui que vous soyez je vous dis bonjour et bienvenue sur la première chaîne de télévision privée du Sénégal ñu ngi am tey bànneex ak comme nuñ koy defee à chaque fois ngir bëggal askanu Sénégal ak la ko wër ñi euh, se kontaane bu baax a baax euh, tout ce qui nous regarde de l'autre côté foofu nga xamante ni moom moo di à l'étranger bokk na ci France bokk na ci Belgique euh, bokk ci Suisse bokk na ci Canada bokk na foofu nga aussi moom moo di ci les États-Unis on nous regarde un peu partout en Espagne on est en tout cas très très très très très de vous bonjour également à tous qui nous regardent nga xamante ni moom moo di ca Afrique du Sud bokk na ci Gabon ah ndaxte Libreville moom ku ne xam na ni nu mel ci euh, seen émission bi ñuy tàmm chaque fois di 11 13 ñu ngi leen di kontaane di leen siyaare te di leen wax bonjour et bienvenue au Parc des Princes de la 2STV contentement mbégteeg bànneex ci ñi nga xamante ni ñu ngi di seetaan à Mauritanie Marrakech yàlla xalibas Zeyna Xat waa Mauritanie maa ngi leen di siyaare maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen wax salaamualeykum wanni bik wanni bik wanni bik Mauritanie and Gambian people I think that you were good and everything is right everything is okay maa ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax a baax all Gambian people as you know Kheucha love you and I know for well that you love me reason why maa ngi leen di bu baax a baax a baax a baax di leen siyaare ay ca contentement mbégteeg bànneex ci ñi ni ñi ngi di ci Sénégal ah, bokk na ci Ndakaaru Njaay jël Jóob ah, Sangomar fi nga xamante ni fii la lépp wule ñaay tarkal la ah, ñi ngi toog seen kër ñoom itam la télévision autrement la 2STV booba ak ñu leen di bégal yedd leen ci baax pour wan leen ni c'est des programmes yoo xamante euh, ku ci nekk rek fa euh, nga ci mën a kontaan ba ci émission 11 13 nga xamante ni moo leen di divertir avec de la bonne musique ñi ngi leen di kontaane bu baax baax tout ce qui nous regarde de l'autre côté à Saint-Louis du Sénégal maa ngi leen di kontaane yéen itam di leen siyaare bu baax baax ma région ma fierté bokk na ci Louga euh, bokk na ci Kaolack bokk na ci Dagana Podor Richard moo di ca Bakel ñaanal di leen siyaare bu baax a baax a baax Amdi Moustapha il est là ici présent tey le capitaine euh, le plus jeune caméraman d'ailleurs moom xaw ma dafa nelawul guddi wala dafa am fu mu fanaani am déet waaye boobaak léegi mi ngi nelaw yeewu na nag euh, waaye ni mu yeewoo gis naa ni mi ngi en activité l'international moom mooy senom moo gaa sur maa ngi lay siyaare bu baax a baax a baax di la béggee bu baax euh, maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax tonton Tafa maa ngi lay jaajëfal di béggee bu a baax Mbarak Grégoire l'international bàyyi ma jël ki ne ci ligne ba pare doo ko yegale 88 14 ou 13 bonjour salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. mi mi mi mi man xaw est-ce que xam nga ni man gisuma ni woon man li ma li ma sañse nii dafa ëpp yow. xëcc sañse nga de. wala nu mu demee nii yow. ça va. nee ma nee ma moo lii lan la moo xëcca lii lan la boo lakkee dëkk bi tubaab bi jàpp la lii lan la ma naan tar ki sakin tal ki sama tata wala sakin nga naan bi tam wala tat ki tat wala tat ki sakin. maa ngi wootee Mauritanie. yaa ngi wootee Mauritanie. wallahi yow kontaan naa trop Kheucha dama lay seetaan lu la kontaan wallahi la kontaan naa waa Mauritanie. marhaba bik wanni. wanni bik wanni tudd. ci loo maa ngi nii gisoo ni maa ngi ci jàmm nii. macha laa dëkk danga naan ma danga naan ma gis naa ni sañse ti nga. sama xarit bi El Hadj bu Kéba Shop nee naa ko. Euh, euh, euh, yow bu seddee nga sañseel ma bu tàngee nga sañseel ma qui es <laughs> ndeysaan yaa ngi toog sa kër jàkkaarloog tele bi billahi bi macha allah signal bi dawul deful dara. Ah. bu baax a ah, signal bi nice impec lépp a ngi wallaay macha allah waaw la télévision autrement ndeysaan ndeysaan du ngeen këree ci ndaxte programme yi leen di defal dafa neex macha allah ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf amin amin yaa rabbi amin ñu bokk lépp ci kàttan yàlla ndeysaan oh là là kon bu ma ñëwee Mauritanie faw ma jaar seen kër ngeen rayal ma bëy ah, nga sama numéro wallaay umu laa tudd. umu est-ce que di ngeen ma mën a rayal bëy bu ndaw. amul problème yow bëgg ñu defar. man bëy bu ndaw laa bëgg xam nga bëy bu ndaw yàpp wi day nooy. waa bëy bi xayaar la tudd xayaar. ah bëy bu ndaw bi xayaar la tudd. waa xayaar la tudd. mooy bëy yooyu di jooyee yooyu ndaw yooyu yooyu yooyu la. wallaahi wallaahi ah, waaw waaw amul problème léegi yow bu baax a baax amul problème léegi bul coupé ñu jox la sama numéro ci suuf. amul benn problème. après ñu jëlante ci suuf man a yow dégg nga amiin incha allah umu laa dégg nga. umu d' accord amul benn problème delloo sama numéro waxuma la numéro gën a gaaw nag sama numéro laa la wax ah. ok waaw jeex na. Aïcha Oumou maa ngi koy bu baax a baax mon ennemi Grégoire il est là aussi Aristide mon gars sûr maa ngi lay béggee euh, di la jaajëfal bu baax a baax a baax keneen ki du ma ko nuyu euh, ndaxte sikku ñu nuyoo man ak moom tey dafa yeewu jël yoonam ma jël sama yoon kon nak na dem ma dem Aïcha mi ngoogu ñi gërëm en tout cas euh, tout ce qui nous regarde ñi ngi leen di kontaane nee naa comme tous les mercredis xam ngeen ni leen di ci rétro waaye tey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 rythmique ma jiite dëkk bi animation xale xëcca xale rap xale musique xale dama xew mel ni DJ xëcca bëri doole mel ni DJ xëcca fi ma koy yëngal di ko yëngal ba ñëpp ne mën a waaw waaw xale xëcca xale rap xale musique xale dama xew mel ni DJ xëcca bëri doole mel ni DJ xëcca fi ma koy yëngal di ko yëngal ba ñëpp ne mën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 Merci beaucoup l'international Grégoire. Merci également à euh, mon ami très cher son Altesse le PDG euh, de l'autre côté foofu nga xamante ni moom moo di ca diwaanu euh, Médina Fass Gueule Tapée gone la goo xamante ni Pape Siri booy rasamaan wuy ma yaa ngi toog fii di seetaan maa ngi lay gis wuy ma wol wol wol booy bi jël ko aaru mbedd quoi jël ko aaru mbedd toog moom côté Médina côté Fass Gueule Tapée noonu nga xool booy bi public bu doy waar la am te booy bi boo déggee ni muy rabee nii xam nga yow kenn gënu laa xam hip hop yow da ngay xam ne kii la mais bii passé jël nga ku la neex waa jooju noonu kookan la Pape Sidi c'est que ñun talaay la lay wax ci <laughs> xarama noppi sax balaa waa ji di ma kooj ndax gis naa ni moom ku gëm boppam a ngoogu boppam a ki nga mujjee jël noonu aaru mbedd ayca merci beaucoup son altesse les amis on est comme tous les mercredis xam ngeen ni tey euh, rétro la leen di indil ngir euh, ñi nga xamante ni euh, way yu nu sax délaissé laay wax yu nu xaw a bàyyi ginnaaw tuuti rek dinañ leen ko wanaat ci télé bi ngeen mën ko gis mën koo gëstu bu baax 88 628 14 ñu jël ki ne ci ligne ba pare bonjour salaamaaleykum maaleykum maa ngi nii maa ngi ci jàmm. man la madame Ba depuis Bargny. madame Ba depuis Bargny. waaw Ba maa ngi lay siyaare. yaa ngi fàttaliku ñu photo woon nañu depuis concert moomoo yaa ngi monsieur yéen a àndoon ci oto bi noonu. bi ma taxalee ci oto bi. waaw ak ah, ah mais c'est vrai mais naka mu madame Ba. gis nga gaaw man du ma di def ci laa dëkk ndeysaan jërëjëf madame Ba jërëjëf yow. ku xam sañ se nga yaa ngi Ba ci yor taayu rek. yaa waaw waaw waaw waaw ma man maa yor taayu te mu gàtt nii. sama jëkkër la nag bàyyi jaamu. mais mais mais mais Grégoire sax a sut sa jëkkër. ana mu baa ngi ci jàmm. ba ba ba yaa ngi koy toppatoo. de ma ko mayal dédicace. waaw non ah da ngaa nopp sa jëkkër nag de yow mii wóor na ma da ngaa mu takk ñaareel. yow ndar-ndar a. wallaay ndar-ndar nga nag di ba mën a gisee dama la xool rek nga taxaw nii physiquement ma ne kii ndar la dëkk baa xam nga ni dina yéex a takk ñaareel. ah looy wax nii. waaw mais jigéen ndar dafa mën a togg mën a sëy. ba noppi civilisé yaru yow sa goro yooyu ak sa njëkk yi dañ laa gërëm. wallaay. lu ma kontaan yal na la yàlla yeggaleel ni yoon. amiin yaa rabi amiin yaa rabi ñu bokk lépp xale ci showbiz dëgg la dëgg la dëgg la ndeysaan. yàlla téyel boppam ngi kontaan bu baax ci yéen tamit. la fierté. ndeysaan de notre grande ville. ndeysaan oh là là oh eh, yow man xaw ma loolu. et pourtant je ne me je ne me rendais je ne me rendais compte de cela ah. ah ñun doomu wax dëgg fier nañ ci ndeysaan oh oh oh oh merci beaucoup ça fait plaisir kontaan naa bu baax en tout cas madame Ba. maa ngi lay ñaanal ay ca toogal enjoy xam naa ne tey moom foo jaar ma fecc loola. ndax sax ndar sax laay jëm ni xoolal xoolal ndar laay jëm. xool xoolal déglu rek egre eh, waaw kay nag moom nag ma ko kaleel Abdou Guité mais xoolal fa ma jëm fu ma jëm tey ngay ree bay bëgg a dee way wu yàgg laa lay tegal. Ndiaye Tilala de l'autre côté à Saint-Louis du Sénégal une fierté de cette vieille ville de Saint-Louis du Sénégal en tout cas way la woo xam ni euh, ñun moom lañ daan café bi nekkee ndaw euh, bu nu daan laaj euh, ba dégg naa Mbaye Ndiaye booba mi ngi doog a tàmbali benn jour rek gars ramas ko xam nga ndar dafa bëri ramasse léeg-léeg day bëri ramasse ñu ramasse ko rek bëgg fekk policier bi xamu ko ñu yóbbu ko ba ci brigade bi tegloo ko attaaye mbay sigg xool policier bi ni que mais xam nga doom ñun doom ndar dañuy mais comment mais yow xamoo ma ay <laughs> eh, xaaral leen bu leen yàq sama liiwaay ah da ngeen di xaar may ma ma yeggale mais comment ça policier ni ko mais yow la naa ma ay comment ça mu ne ko yow xamoo ma policier bi ni ko yow yaay kan mu ne ko man maa way Tabaara Njaay Tabaara Njaay mbay yàlla nga gudd fan 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum allo. waaleykum salaam. nga bëgg a yàq sama li ma doon nettali nii lii laa la yow. Ah, li li li dafa garaaw de mais gis nga woyu Mbaye Ndiaye bi tabaara Ndiaye bi yow xamoon nga ko. yéen non dafa doy waar way wu neex la way ndeysaan moo mën a way de mbay mais yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm baax yow nag. man maa ci jàmm gisoo loolu noo tudd yow. man maa ngi tudd Ousseynou. Ousseynou. waaw Ousseynou foo nuy nii. Ah. Ah? ah. ah. ya yaa ngi depuis la France fan ci France. waaw fan ci France exactement fan nga nekkee ci France. Nice yaa ngi Nice. waaw mais naka mu naka foofu naka sedd bi wala tàngaay bi. ça va ñu ngi ci kawam. ah yéen a ngi ci kawam. waaw yow Ousseynou depuis yow Ousseynou depuis quand yaa ngi France. depuis trois ans maintenant. depuis trois ans maintenant. waaw alors tu tu fais quoi là-bas tu es étudiant tu travailles. oui oui deuxième année première année ou troisième année. deuxième année. ah. deuxième année. deuxième année ah je ça ça oui. ça ça peut se comprendre vu, vu que vu que depuis trois ans tu es en France sinon tu vis avec la famille là ou pas. ah machallah machallah et comment tu trouves qu'est-ce que ça te fait. machallah c'est pour vous. merci. merci beaucoup en tout cas Ousseynou. benn Abdou Guité la. benn ah? waaw. waaw waaw waaw waaw foog mu foog mu foog mu. ndar ndar 350 la ah kon tey tey tey ñu delluwaat ndar quoi eh may ko benn Abdou Guité Seck bu doy waar bu yàgg nag incha allah léegi mu may la ko. ndar 350 ndar. ah ndar 350 ans bi bi muy way ndar bi. voilà boobu dafa doy waar nag eh Gré. xoolal léegi may ko batma tuuti mu recherche la ko en attendant ma am fu mu dugg moom rek mu indi la ko dégg ok bonne journée. merci beaucoup a toi Ousseynou. ñu ngi koy kontaanee bu baax a baax de l'autre côté en France merci beaucoup ça fait bien ah toute façon yéen ñi ngi leen di gërëm yéen waa France gépp aussi euh, ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax merci beaucoup gëré wutal ko ndar 350 ans boobu noonu muy ñaan ci Abdou Guité Seck ci kanam tuuti dinañ ci ñëw laataay ñuy dem seeti ki nga xamante ni mooy sunu baay man baay la ci man ndaxte ndaa naan kuli fadrin la mu way fi way woo xamante ni ñun xale fekkee noon ko yóbbul ma Papa Salam Diallo c'est parti ñu dem ayca vieille chanson mais une très très très très très euh, belle chanson de Papa Salam ndaxte Goana ku ne xam na ni daan defar ndigg maanaam way léeg mën nga wayal nit ñi mais del def de telle sort que nit ki toog ci këram bu fekkee dafa jógee entraînement bëgg étiré wu mu koy étiré woo man way wii bu ma ko daan déglu ba jusqu'à présent su ma demee entraînement ba ñëw fii rek laa koy jàpp jël ma xolal ma naan ko rat gis nga ndigg li da koy defar moo tax boo dee célibataire foog ngay defar sa ndig léeg-léeg lii moom <laughs> moo day defar ndig rotation bay baax 88 a 14 13 bonjour salaamaaleykum. maaleykum salaam. nee nañu koy ñuur met di la siyaare ko kan la. man la Mariama Barham depuis Saint-Louis. Mariama du Sénégal fan nga dëkk ci Saint-Louis booy. maa ngi dëkk Diamaguène. Diam kon boo ah, kon kontaan nga léegi léegi ci Tabara Ndiaye bi daa. Ah? macha allah kontaan nañ trop. ii non tabaara Njaay bi dafa toog tabaara mais mais mais mais mais Mbaye Njaay taay taay woy na woy wu neex waay. ah gis nga de. mooy mooy bi muy wax mante fraise xaw ma la ku la koy màccal nu mu ko waxee noonu way ko. ah lan laa la ko. ah yow xaa doo déglu way wi way wi way wee ngi def bës ci TikTok bi. naa ko déglu sax. ah. ah lan laa la way bi <laughs> yow da nga doy wantal gis nga doom dari ndeysaan doon xaw a civilisé nag. neen def noo tudd. maa ngi Mariama Barham. Mariama fan nga dëkk ci jàmm gën ban côté. maa ngi dëkk uude. kon koñu uude. waaw booy Saliou foofu la dëkk Baye yaaram ak Pamet foofu la dëkk koñu uude. ah xam saali Saliou Saliou seen petit gàllé foofu la dëkk. Saliou. waaw man man ma ngay wax foofu foofu yàgg naa fa yàgg naa fa dox. de dégg aja ñi ngi koy gërëm ma Saint-Louis moom itam toog di seetaan euh, jàkkaarloog la télévision leader di la 2STV ñi ngi kontaan en tout cas euh, nii rek la nee naa leen tey rétro yi di ngeen kontaan waaye itam lu ci ne euh, morceau bu ma ci teg bu ne rek dinaa leen wax le pourquoi ma teg ko donc da leen farataal di utiliser sa per salam woyam bii di Guana ndaxte vraiment wooy la woo xam ni dina defar ndigg mag dina defar ndiggu xale waaye itam koo xamante ni da nga am ay problème mu ndigg yi ko problème mu code et tout indiwaat morceau yi ça va vraiment ngeen mën a di defaruwaat di nekkaat en beaucoup Père Salam waaye loonu rek pour fecc mais yaa ngi ciy defaraale parce que euh, moomoo moo ma ko wax léegi ni ma way wi bi ma koy fàttaliku booba temps maa ngi nekkoon ci ay jafe-jafe yu métti mais bi ma ko commencé fecc ba tey yëgatuma ni fii mi ngi métti ci man donc Père Salam encore une fois le Sénégal te remercie ci pays Guana nga xam ne mi ngi defar ndigg ñëpp macha allah ayca euh, ci ki jëm wala ci euh, ki nuy waaj a jël ci 88 628 14 13 kan lay doon bonjour allo. allo maa ngi nii maa ngi ci jàmm yow nag. man waa Ndar yéen nu mu demee nii yéen waa Ndar. Aliou. Eh, eh, eh Grégoire ñii foog nga may leen Abdou Guité Seck 350 ans bi ñu xool ñu xool pourquoi waa Ndar tey seen yaram tàng nii. allo. ma gërë xaaral daf ma soxla xaaral nga ni ma lan. sama numéro téléphone. waaw. yow foo dëkk si Ndar. Njolofeen. Njolofeen. noo def ak côté côté kër ñoom El Hadj Diouf. xawul soreyantoo. xawul soreyantoo. non li xam nga ko. waaw xam naa noo def ak seen kër i Baye nag Baye international la de ah. ñoo bokkoon classe. yaa ngi Baye Fall bàcc li yéen a bokkoon classe. man ak yow. maa ñoo bokkoon classe. troisième spécial. ban école. li Charles de Gaulle ba ban classe lañ bokkoon maa troisième spécial. lycée Charles de Gaulle seconde premier wala terminal lan bokkoon. troisième. troisième xanaa sem Guiabert ngay wax ah allo ay yow nay bokkee troisième ba pare nga xam man kay lycée Charles de Gaulle seconde laa fa def terminal nga bëgg ma troisième spécial. comme woon spécial de eh, man musuma renouveler ma <laughs> vieille ville ay waay Saint-Louis wa ngoogu namm naa ko ndeysaan ay ca 88 628 14 13 bonjour wàññi leen télé bi s'il vous plaît maa ngi dégg sama bopp de s'il vous plaît hello salaamaaleykum hello how are you I'm fine I'm fine too what's your name Aji from Gambia, Ating. Yeah, how are you? I'm, I'm fine too. I'm good. What about your I day, like Aji? You so. Huh? I like you so. And eh, me too. I like you so much, Aji. <laughs> how are you? I'm good. What about family, Aji? taso bi neex na de. Ndeysaan Ndeysaan maa ngi kontaan yéen bu fekkee mi ngi mi ngi ne mi ngi neex ci yéen rek mi ngi neex ci man kon. dafa neex trop always dama dee bëgg a xool waaye. léegi line bi yee line bi daf dee bus yi xam nga léeg-léeg léeg-léeg Grégoire day soxa du bëgg a waa dugg waaye man xam ngeen ni yéen yéen yéen ni ma leen a buggaa ngeen buggaa ma ko noonu noonu noonu sunu mbëggeel bi mel man ak yéen. ñoo bilaay walaay xale boobu kan la xale boobu hmm? di jooy kan la. sa doom bi la. doom bi lu mu tudda moom. Ousmane. Ousmane bébé moom mi ngi dee toog di seetaan tonton Kheucha. waaw waaw ni ke ni ke ni ke ni kontaan na. waaw baax <laughs> na. mais kontaan na dégg nga aji thank you thank you for calling. thank you. ndeysaan ñi ngi koy gërëm bu baax a baax merci beaucoup Abdou Guité seek sama xel mi dem na ca Ndar maa ngi nuyu waa jàmm gën waa Pikine waa Xor ah foofu nga xamante ni moo di Njolofeen euh, ñi nga xamante ni ñoo di waa ma ah bàyyiwuma ma bàyyiwuma Pikine bàyyiwuma Balakos euh, bàyyiwuma Xor ma fenn ci Ndar ah, Pay Paal ñëpp ah, Dagana Richard tool ñoo ñëpp ci Ndar la bokk maa ngi leen di gërëm di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax waa Nord waa Sud yéen ñëpp maa ngi di gërëm Guet Ndar ah, ah waa Xor Euh, euh, euh, wan daal bu ma limee juum gërëm naa leen nuyu naa leen yéen ñëpp cité Vauvert ñëpp maa ngi leen di siyaare sànnaar Për sànnaar Tukulër sànnaar Worof bëri na ndar yëpp maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax sama xel a dem ci ndar donc faaw ma nuyu leen jërëjëf ay ca ci keneen ki nu jëm moom itam daanaan la waaye wala ñu jël ki ne ci ligne ba pare c'est sur le 88 628 14 ou 13 bonjour salaamaaleykum allo allo allo allo ayca kooku dem na ci keneen ki nul jëm moom actuellement mi ngi def buzz mi ngi def tendance ba def na ba créel ko euh, way wayu boppam euh, sama yaay la nag yabu ma ko moo tax sax vidéo bi partagé wu ma ko ndax dama ko bëggal sama bopp mu bëgg ma loolu maag doomam la woon te boobu euh, c'était depuis belle lurette muy ki nga xamante ni moom moo di Abidja di doomam di doomu Oumou Sow moo doon xew waaye gis ngeen sunu yaay ji Oumou Sow fa mu génn moom <laughs> diggante ma <laughs> vidéo bi rey na ma maman mais mun on revient si c'est bon gré c'est parti. Get a gun, gun, gun. beaucoup. beaucoup merci beaucoup Oumou Sow Sow pour la jéeli sunu yaay ji ñi koy gërëm bu baax a baax a baax fly to fly disponible toujours sur YouTube yenn rétro yi bu ko namee da ngeen di dem ci dem dem yokkal leen ay vues euh, ñoom ñu mën ko euh, ñu mën ci di ci kontaan ndaxte ay œuvre la yoo xam ne ku ci nekk euh, ba mu koy way da ko doon way à cœur gis ngeen ko ba mu koy way ak na mu ko doon wayee ci fly to fly I wanna fly xaw <laughs> eh, way dem bi ndeysaan lu neex la ay ca ñu dem ci jamono ndaxte jamono dafa tolloon foo xam ni daawoo dégg sax ay waxu football ak basket ak làmb lu ndaxte ñun ñëpp dafa am benn po bu ñu daan farataal dinaa ci ñëw léegi 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum ou allo oui. oui bonjour. bonjour Kheucha. oui ça va ko kan la. ma Amina. Amina noo sant yow. man Diop laa sant. Diop dugub Amina fooy wootee. <laughs> man maa ngi wootee Matam. Matam maa ngi lay nuyu di nuyu waa Matam gépp bàyyi na ngi ci jàmm. ñoo ngi ci jàmm bu baax alhamdulilah. na ngeen def yaa ngi toog jàkkaarloog 11 13. waaw maa ngi jàkkaarloo yow nii nga def bële bu baax. et eh, qu'est-ce que ça te fait loo gi ci sañsa bi. ah ça waaw lii la naan sañse dégradé des fois bul bul bul jël li nga sol ci yére bi bëgg koo def ci dàll yi danga koy dégradé dangay ngay jël pantalon bi boole ak tubéy ji à chaque fois rek euh, damay jàngale pour ñenn ñi nga xamante ni seen sañse léeg-léeg da leen di réer ñu mën ci di ci ah. génn Momo ah. Momo le plus jeune caméraman du Sénégal loolu rek ay catam sañse la mënul non damay wax dëgg nag moom bu dëgg jotee nañ ko wax day agence ay couleur naan la non man yére almaa ah, laa na amatul <laughs> <laughs> non ba pare bu ma mu naan ma ay sama yére yi may sol moo gën a seet yére mi ma doon yow arrête de faire genre waay sa tëdd on est en direct waaye yow nga ne ma lan yow. ma ni je te ma ne ma je te lan. je te jure. yaa ngi toppatoo sama xarit bi de borom France. ah du may li dafa doy waar li dafa doy dafa doy te di da ngay xool couleur yi mën a ànd nga mën ko nga mën ko boole. Ah, ay jàpp jaune boole kaak bleu clair bleu de nuit bleu ciel. dugal ci noir ci biir non non non ça c'est la guerre des couleurs en fait. les couleurs sont en de se battre c'est pas bien. <laughs> kii laay tooñ wallaay. sama numéro téléphone. waaw. wala bu gërëm waar ban nga ci bëgg. non man ñàkk laay bañ bu ma am rek man dinaa jël rek. ayca ok kon jox ko sa numéro Grégoire s'il te euh, kii Bidi indi ko waay ah ay ay ay Grégoire ma yooyu yooyu day neexal yëf yi yooyu des fois da ngay jékki saa rek plané boo gisee xaalis rek palaane yow da nga doy waar de jërëjëf Grégoire dina la jox bosam gërë jox ko sa bos sonn man yàlla mi ñu sàkk ñu dem simb tuuti seetaani Lamzo jamono euh, euh, rappelez-vous un petit peu simb ak cosaan ni mu meloon fii ci Sénégal pour votre plaisir gars yi ñu xool 28 628 14 13 gën a tee ko foofu bu ko bàyyi mu dem s'il te plaît allo. waaw c'est ça. waaw. ça va nu mu demee. ça maa ngi ci jàmm yow nag. bon eh, li nga xooy. waaw yaa ngi toj ci yow. Euh, ah yéen a ngi kontaan ci rétro yi. waaw ñu ngi kontaan ci yow. mais nag damay man damay soxla ni ngeen di toogee seen kër damay bëgg ngeen yónnee ma seen vidéo ci 78 463 34 15. yaa wax lii. waaw damay bëgg ngeen yónnee ma ko yow noo tudd ak fan ngay wootee. nee na yàlla ba Kaolack. depuis Kaolack. mais bàyyi nga ni Kaolack war naa fa ñëw lendemain tabaski. ah bon. maa fay ñëw maa ngi Wally Barago Seck incha allah yéen gisagu leen lool. Wally Seck kay tëgg kawlak Kaolack maa koy présenté man xëcca. boo waxee lu mel noonu. non loolu boo ko tardé tardé lu rëy. kan ñu ngi en tout cas. ok bu wax yo ñoo far. ayca enjoy yónnee ma vidéo bi ci 78 463 34 15 numéro bi nag dinaa ko changé xam naa dama koy changé numéro boobu dégg ngeen. d'accord amul benn problème dinaa ko. oh gërëm gërëm dem leen rek dem leen bu ma demee rek dem leen su ma demee dem leen waay 88 628 14 13 bonjour. allo. oui yow sama ambiance bi bu ma demee nii bu ma ne mu lay cëgin gi ma koy fecc nga téye <laughs> nii la de boo ma gis nga boo ma limité wul du ma toog de. da ngaa foog nag waaw waaw waaw dëgg la. Ah, <laughs> eh, eh, eh, xoolal xoolal yaa ngi abusé de yow. arrête de faire genre toi. c'est toi qui peux arrêter de faire genre. ayca d'accord kon arrêté naa noo tudd ak fan ngay wootee. Thiès laay wootee. ah yow lii moo tax gërëm nuyul ma kii yow nuyul ma xaaral ma nuyu la. <laughs> koy naa la wuyu ma sànq bi nga doon wax dafa daaw doo wax naan ñun ñu jël ko tamit chaque jour ñu dugal ci nag chaque jour ñu ñu ñu ñu ñu ñu bégg. bala 78 bi. non non sànq numéro bi nga doon wax xale bu jigéen. ah. 400 xaw ma 66 bi. waaw mais mais moom moom mooy vidéo mooy mooy bi ñuy joxe vidéo 78 jëlal. xaaral. ay ca gaawal. 78. 463. 463. 34 15. 34 waaw léegi foofu foofu ngay mu laay cegin ne yónnee ma ko fa léegi vite fait dégg nga. ma di nga mu laay cegin. non tegal ma Viviane bu yàgg. dé dé déglu ma rek yow pour eh, xamal la na yow eh, doo ma imposer li may def dégg yow. <laughs> mais ma man man nga jot de boobu la neexee coupé coupé seet <laughs> man wala faale <laughs> naal tegal Viviane bu neex léegi léegi dégg bu yàgg. bu yàgg bu wallaay di nga kontaan yow kay mu laay cëginal rek yónnee ma ko na mu ñëpp mu laay cëgin. dama bëgg rétro nag. waaw ndeysaan rétro dafa neex te tous les mercredis dama leen koy jox. ay te ñu mu laay cëgin xool gëré teg ko ci mu laay cëgin gi bu gore Cees gi def ko c'est parti ñu dem ba tey. ndeysaan ndeysaan Lamzo jamono feccu démb yee neex ay mu laay cëgin yow mu laay cëgin fii rek nga koy jàpp yomboon neex mais fecci léegi dafa xaw a difficile quoi ay ay di def nii di mel na jaan yi yi du def nii fii fii fii ñëpp ko fi mëntee xool fecc démb yi rek ñu ngi leen di gërëm ndeysaan maa ngi fàttaliku studio 2000 bii leen ko enregistré woon maa ngi mel ne ko fàtte <laughs> naan maa ngi fàttaliku kat doon ma dégg rek ci liñ ma wax te dëgg la itam studio 2000 bii leen ko enregistré woon fii ci 2STV yàgg na noo génne ay ndaanaan euh, yàgg na noo defar ay ndaanaan way yu bëri yi may teg nag ci rétro yi baa xam ngeen ni fii la jógee fii la soqe ko fii la cosaanoo fii ci biir kër gi loolu lépp nag fekk na fa jëmm jooju di madame Sarr ma koy nuyu euh, ci euh, li nga xamante ni trophée bii ñu ko jox foofu ca euh, calebasse de l'excellence ndaxte madame Sarr ku ne xam na liggéey bu mucc ayib bi muy mal ci kër gi depuis 23 ans doon koo xamante ni ku ne fekk na ko fi waaye ku fi ku ko fi fekk ba yegg si fi ba jugee fi tam li ngay wax ci moom mooy liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy def fii ci la 2STV bi yaay booy ñu ngi la ciy félicité di gën a di bari ndaxte 23 ans d'expérience fii ci biir kër gi dara musul ñaaw mu doon koo xamante ni suñu yaay la ñun ñëpp njabootenu waaye doon ku baax ñi ngi lay ñaanal euh, trophée yàgg di ñëw di gën a gën euh, ci kattanu yàlla ak mbaaxam ñëpp ñëpp tout euh, à travers ma voix a ngi lay féliciter waaye ñëpp a ngi naan la jërëjëf encore une fois merci beaucoup à madame Sarr ñi ngi gërëm bu baax a baax a baax très cher ayca très rapidement les amis dem songaat leneen li song nag gërëm a ñëw <laughs> gën te pas sérieux booy ayca beaucoup euh, ñi ngi leen ciy gërëm bu baax a baax a yooyu tamit ay woy yu neex yoo xam ni euh, mi ngi ci toile bi 88 628 14 13 salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw maa ngi lay siyaare. xëcc maa ngi lay béggee mais mon ami noo gisee Moulay Cegin gi Moulay Cegin lu yàgg a ngoogu. non toj bi toj bi billaay. non Moulay Cegin dafa neexoon ndeysaan. baa xam nga ni gaa yi léegi feccatunu gaa yi feccatunu. non gars yi feccatunu pecc léegi bi fi ñu ko teg du foofu. billaay non li jë li jibi say waxoon rek xam nga jibi say nee na feccu feccu démb gi gars yi ñoom àll sekk tata wasa kit da ngay fecc xam ne góor ay fecc wa mais fecc léegi <laughs> ay <laughs> jibi say laay wax nga dëgg fecc léegi gi oh wallaay ndeysaan ay ca copain maa ngi lay kontaane bu baax a baax ah mën nga ñëwaat ci 88 628 14 13 laataa nag may euh, euh, seeti ñeeño yi ndaxte ñeeño yi tamit dañu taamu lool lool lool émission bi bëgg ko def ko ci seen biir xol ba tax na titi ba mu leen wayee dama ne tey foog ma indi leen ko ci rétro kuy ñeeño jógal jaayoo yéen a aye te yéen a ko moom si c'est bon gré teg ko ci brique on regarde wala ñu jël ki ne ci ligne ba pare 88 628 14 ou 13 bonjour salaamaaleykum allo allo allo. wala allo ça va. waaw mais maa ngi lay siyaare kilifa gi. maa ngi lay delloo siyaare. ba yaa am jàmm tur bi naka la. maa ngi Arona ah? Adama Pape Diouf. ah Badji. ah ayayaay da leen yokk baat yi tuuti ma doog a dégg bu baax ñu xool ñeeño yi ak titi lay ñooy jàmbaar ñeeño yi ndeysaan ayca ba tey ci 88 628 14 13 salaamaaleykum salaamaaleykum Khadija oui bonjour billaay maa noo def naka sa dugg daa baa ma ngay dallax bu rëy noo tudd ak fan ngay wootee Binta and yaa ngi Gambia. maa ngi lay kontaane naka Gambia yéen a ngi ci kaw. ah. dama doon seetaan rek courant coupé. da nga doon xaar xaar moo Adama Baro xaar ma ko lu tax courant coupé foofu noonu xaar. ma wala ma wala Adama Baro laaj ko lu tax courant bi coupé foofu ah, ah? waaw. chaque jour da ngay tëraay di ma woo du dem. ndeysaan ndeysaan mais tey dugg nga tey dugg nga tey dugg nga dégg nga. ndeysaan thank you en tout cas man maa ngi kontaan bu baax xam naa ni Gambie yéen fi ngeen ma def ci seen biir xol. and I like you too I love you too all Gambian people bu ngeen ma bugga benn rek xam leen ni bugga naa leen fukk man fukk. ah nga ne ma bu ma gisee looy def yow. damay xom ñetti yoon. ñetti yoon ngay xom ñetti yoon. waaw waaw. ah bul xom ñetti yoon waaye xamal ñeenti yoon waaye ñeent ba juróom. <laughs> su su ma numba kool nga bugga ah yow loo yow loo doy suma numba kool après nga may nga may nga may seen message ji ak di ma di kool daal ah. danga ma danga ma over danga ma overlove quoi yow. la la oh la la oh la la oh thank you thank you so right now demal demal Grégoire mu joola suma numba kool dégg nga bul mu joola suma numba kool. thank you for calling ndeysaan maa ngi koy gërëm from Gambia ñi ngi koy charé bu baax a baax ñee ñooy dégg naa kontaan nañu seen kër ñoom itam waa ñoom ñoom ñu ngi may yónnee seen vidéo yeeg or yi ak ñoo bëgg or da ngeen ma may ci or yi tamit or yi ngeen di takk or bu baax yéen la yal na yàlla jàmmal leen te defal leen jàmm mm, ma nga ca États-Unis moom itam toog di seetaan maa ngi koy nuyu ah, Maguette euh, euh, euh, bu baax a baax a baax sàll ngaari lam tooro buur gédé tukulóor ale racine samba ngaari jamal yow xam nga li nga li nga ni nga mel ci sama xol kon nag jëlal lépp rek ma may la ko dégg nga ay ca may naa la woy tuuti boobu nga xam ni moom moo doon ñeeño bi déglu léegi léegi gré ñu profito toujours euh, dem seeti ki nga xamante ni moom moo di euh, l'international euh, Pape Diouf jaral gama pour votre plaisir toujours les amis ñu dem si taani Pape Diouf leader de la génération consciente il se prépare Pape Diouf merci beaucoup pour faire son comeback incha allahu rabbi di ngeen gis juste après l'émission ca bërëb ba nam koy waajee moom itam leader de la génération consciente ñi koy gërëm ci way wu neex moom ay wayam bi day na ko <laughs> bañ ko wax <laughs> comme que réew mi daam fu mu toll ay te ñi koy gërëm bu baax a baax moom Pape Diouf on enchaîne toujours dem seeti nag ki ma doon ñaan Viviane léegi léegi maa ngi lay indil une vieille chanson mais dama bëgg yow moom mu doon ko ñaan nga yónnee ma sa vidéo ci 78 463 34 15 boss euh, maa ngi naan sax boss bëgguma tudd turam Grégoire euh, s'il te plaît euh, jëlal ma vidéo yi nga dajale ko waaye ndax dañ ko war a teg on serait chez vous balaa ñuy dugal sunu ndaanaan bi dégg nga donc ñu dem seeti la star Viviane donc doog ñëwaat si c'est bon c'est parti. on regarde ma ci taaxi te yoo bu mu ci àll bi ma a seeti sama mbokk saax yi bari nañ ay jono nit ko dajeel mi ngi moom daan dangi saxaar si jële ma ci taax te yoo leen ko sax moo gën ma xam ne yéen a ngi may sonné ma ma ma ma bañ a daaneel ayca 88 628 14 13 salaamaaleykum allo allo Grégoire xanaa ñi ñemewunoo yàq sama daaneel bi moom moo te te te te te te te te te te te te te te jërëjëf Viviane Chidid ñi ngi koy gërëm ci way woowu nga xam ni moom itam yëngal na àddina yëngal na Sénégal bu baax a baax je vous rappelle que nous sommes en direct sur Facebook je vous dis bonjour et coucou à tous qui nous regardent sur nos plateformes ñu leen di jaajëfal yéen itam euh, di leen kontaane xam nga man ak du ñuy gisee lu bari moo tax bu ma leen gisee rek leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi leen di chaare maa ngi fay jaar léegi-léegi doxantu nuyu leen ku ci ma jaar ci turam ak santam jaaraale ci turu papaam ak yaayam sax bu Thiello euh, euh, bi nga xamante ni way la woo xam ni xale yi bëgg nañ ko di ko tendance de temps en temps ndaxte euh, génn na dëkk beeg dugg na dëkk bi dafa neexoon loolu Grégoire pour le plaisir de tous les téléspectateurs du monde entier ñu dugal Gallo Thiello et on revient c'est parti Aïcha jërëjëf merci beaucoup Père Gallo Thiello il était euh, venu ici il a un moment ici sur la chaîne ah leader ni koy nuyu bu baax a baax moom itam di ko jaajëfal bu baax a baax a baax a baax euh, sonnerie bi moo kuwul ci kaw moo tax dégg ma maa ngi naan leen indi leen ko indi leen ko mën ngeen ñëwaat ci 88 628 14 13 laataa nag regarde vidéo yi xaaral bul bul bul kaleegum yëpp parce que morceau bii may waaja a dawal euh, balaa sama artiste bi di ñëw damay bëgg ñoom ñëpp ñu fecc que seen biir kër dama ko gis keroog rek sama xol bi seddu guy guy guy guy xam ngeen raas mbay Dieye fay raas dama bëgg képp ku toog sa kër di seetaan tey na nga raas ndax man damay teg yii yëpp laay teg si mi veer yeeg teg dàll yeeg tey lu mu musul def laay def donc euh, euh, gré xaaral video yii di ñëw parce que yii laay gën a soxla euh, mbay Dieye fay pour votre plaisir les amis raas nga raas ma raas te gi gërë ñu dem maam dama tegal sabar dëgg la yoo xam ni macha allah yëngal na Sénégal ak àddina euh, donc Gré defe naa ni am nga maximum de video yoo xam ni mën nga ko jàllale léegi yaram tàng na gis ngeen ma sax xam dama fecc fecc fecc bu mënatuma donc dañuy dem seetaani rubrique TikTok juste après ñu dugal suñu invité moom itam ñu waxtaan ci lu bari si c'est bon ñu dem seetaani rubrique euh, non pas rubrique TikTok mais on serait chez vous c'est parti Gré ñu dem. jërëjëf kontaan bu baax a baax a baax ci yéen ñi nga xam ni euh, yéen a ngi toog seen kër di bànneexu ak seen émission euh, bi leen di accompagner de 11h à 13 ñu duppee ko on serait chez gis naa ni ngeen mel ci émission bi euh, gis naa aussi ni ngeen mel ci ni nga xamante ni tarkalla moom ngeen di toog seen kër toogaay gu jekk macha allah xale yu rafet nag ñoo ne di seetaan on serait tarkalla kenn demul ngeen des yeneen vidéo yi dina ko teg léegi léegi comme bi ma doon wax raas léegi léegi gëré kale ko laataa dalal benn boy boo xamante ni il est venu il y na ni teg na boppam ba ku ne nangul ko boo xoolee buñ ko invité ci ay plateau ak bu mu mënti doon euh, bu fekkee ay ndaanaan yu ko jiitu dans le milieu da ngay ni ni témoigné ci moom li nga xamante ni moo ne ci moom euh, muy aar bi nga xam ni moo ne ci moom mu judduwaale ko mën ko loolu c'est ça vient naturellement chez lui raison pour laquelle tout le monde l'apprécie et tout le monde l'aime de son vrai nom Toch Toch mon ami très cher my boy fils <laughs> boy bu <laughs> xëcaa dama laa bëgg. mais booy la sekk ñëw na de. ah le cinq na seen régal soo jege si def seen régal te bañ a yow parce que dama laa bëgg xam nga ma bëgg la. dëgg la. bëgg naa la trop waaye li la caat sekk waaye tax ma gën laa bëgg. lu ma caat sekk waaye. bonsoon bonsoon bonsoon bonsoon maa ngi xësa li moo ne xës. xës xës. gërë may ko loolu xaaral Grégoire may la Grégoire may ba noppi moom mu doog a nuyonteeg téléspectateur. lii oui xës xës xës. eh gërë wan ko lim la way wan ko lim la way Grégoire wan ko wan ko sa bos. wan ko Grégoire moom tamit mbaa way na Grégoire mais Grégoire yow déglu. Grégoire Grégoire. ayca <laughs> Toche la mes xam naa ni tey ngeen di ree bay bëgg dee Toch bàyyi ma bàyyi la nga nuyoon teg téléspectateur yi ba noppi. waaw avancé tuuti rek waaw ah, baan fii baan. nuyoo nañ ko ba rek. waaw waaw dañ leen di di kontaan trop. di kontaan trop si teew si émission bu mag bi. dëgg la nuyu gox bi ñu jóge waaw muy waa Diamaguène. Mhm. Kër Massar. à travers la 2S ñuy le monde entier parce que ñëpp lay seetaan. macha allah liggéey dafa rafet trop. Mhm. waaw le monde entier ñëpp ngi seetaan ñuy nuyu ñëpp. waaw di baalu ñëpp àq na parce que ñun dañuy tooñ rek ñi ngi koy gërëm bu baax a baax a baax euh, euh, bi mu ñëwee léegi yàggut boo nee un an deux ans fa la yam est-ce que sax xam nga deux ans ci milieu bi amul de non non le 5 juillet bii di ñëw lay lay am deux ans ci ngay am deux ans mm. gis nga le 5 juillet bii di ñëw euh, ci lay am deux ans sur la toile waaye tey wër na àddina ndax li mu doon j'ai tendance à dire que toujours nit boo nekkee ndaw di liggéey ak loo mm. mënti def war nga gëm sa bopp et nga gëm li naan la confiance en soi nit ki boo gëmee sa bopp rek lu ne mën nga ko am mm. tey mu toll nii yi ba tax muy tëgg ay euh, de très grandes salles ici mm. à Dakar un peu partout au Sénégal euh, ñu ko ràññee ko ci yu bari bari euh, le pourquoi nga choisir de choisir def comédie ah comédie da lu nekk si ñun la loo xamante ne dañ ko juddwaale mun nañoo ne parce que ñun dañoo juddoo ci ay carte populaire yoo xam ne dañuy neex du mhm. ñun kesee neex koñ bi paa dañuy neex maire dañuy neex quoi jàkka ji sax bu la dee waar mun ngaa ci jàkka ji da ngay ree loolu mënoo si dara mhm. mais def aar nag mhm. xalaatuñu woon dinañ ci def carrière maanaam dinañ dugg ci carrément ci milieu bi mais loo xamante ne nattu la rek boo xamante ne suñ borom moo ñu ko teg loo xam ne c'est destin la mënoo koo dévier voilà naturellement service leen naka mbooy naka mbooy bi waaye yéen a ngi meew mi di naan dama leen namoon rek moo tax ma leen woo ah, foofu nga foofu nga travers loolu ci la ko ñoom Aba gisee gisee Demba gisee ci la gisee men men mi fi ñëwoon démb merci xoolal loolu yàlla def waroon nañ fee fekkante lundi rek la fi ñëw lundi passé noonu nit travers audio boobu dama ci joxe numéro mhm. ci la wootee te numéro bi si boppam dama booy dama gis yow talent sama si da ngay def comédie après ci dama boole ñoom Aba ak ñoom ñoom ñëpp gars yi tamit yaatal ma ci milieu bi may ma fit may ma doole loolu danga tax ñu mën a yegg si fii nit ku baax la borom leel bi Aba ma nga ca États-Unis mm-hmm. maa koy nuyu bu baax a baax a baax di ko jaajëfal moom xam naa bi ñàkkee karaw bi ñàkkee ki ñaan mën na fa yàgg itam mm-hmm. ndaxte ñoom dañ na ci ay jafe-jafe guddi yi yënga ko jafe-jafe mooy bi mooy bi dugalee nga commentaire ci commentaire nga man ma commentaire ku la <laughs> déglu ma man bi ma dugalee yëf yi nga ko wante affaire signal bi ba nga ni ma waa lii nii la demee expliqué ma ma woo la expliqué la yow Toch. affaire signal. signal waaw signalu 2S bi bi TFM sàccoon jëloon jëloon. wax dëgg fa yàlla fi mu toll vol lañ ko wax vol. Seneweb lay xëy. ah yow lii yow Toch kaat. kaa bi lan la waa expliqué ma ma comprendre expliqué ma ma nag ma expliqué ma comprendre. waaw ma bàyyi ko mu sedd kon mu sedd yow parce que kon ni nga mel. ma lu xew rek. a su ko saa ok awul problème ay ca ñoom ñi doon mel ñoom lu lu xam ba. def dañ koy def bàyyi ngay def non non non man su ma defee moom dama naan carrément maa def. mais man dama laa laaj lan la demee yow ma commenté woo. man daal gis naa ay vidéo yu circulé. ci net bi ok tos yow woowoo ma commenté woo. non xoolal ah gis ma ni yow woo ma commenté woo. xësaa gi nga séeréer yi liñ nekkee da nga war a xasaa séeréer yi bëgg bëgg mburu bi bëgg mburu xasaa la ah xasaa waaw man de ah waaw waaw bàyyi li ngay def waaw waaw waaw wax na waaw léegi na ñaaw waaw léegi na ñaaw ba pare léegi lu waa xamal moromam na ko wax ba pare toos dafa ne ma sen <laughs> ah déet dama ah, oh di ah waaw yow kon gars yi baax na rendez-vous le 5 juin <laughs> bàyyi naa mu sedd ñu ngi koy gërëm bu baax a baax moom kaa bi nag fay fekk te dajee kontaan lool ndeysaan ba yëg ci boppam <laughs> toj kii yow maa doon la toj nan ngay waajee le cinq li lépp ci la bokk. li yëpp ci la li yëpp yëpp wàccaay parce que Sénégal lépp ñëpp la lu nañ ko ne ngi ci la kenn mënu koo xar ñaar. Mm-hmm. waaw bu sa nit loo loo ko ëppalee la nga ko ci dimbali. àdduna lépp dañ koy bokk. waaw bu fekkee mu ñaan. non man waxewu ma foofu. parce man maa ngi ci le cinq. <laughs> ah moom nit ki lépp loo ko ëppalee da ko ci dimbali. man bu fekkee nit ki ah, ñaan mbaa mu àbb. bu àbbee mbaa mu ñaan mën nañu koo dimbali waaye jëlee te attaque goowul mënoon ko tey keneen man maa ngi boo gisee maanaam lépp loo ko ëppale war nga ah, jël man maa ngi kilo cinq non eh <laughs> faa duggoon ba fay jën bàyyi <laughs> waaw ah. mooy loolu boo gisee ñu def ko LG mbaa wala banlieue c'est parce que ah. à chaque fois ñun lépp lu ñuy def hmm. daanaka fii lay xewee biir ville waaw banlieue yëpp du ñu am opportunité pour ñëw seetaan si léegi ñu ne pourquoi pas ñu xëcc loolu noonu indi ko biir banlieue artistes yi ñu doon gis foofu noonu la télé ñu indi leen ñu jege si ñu mën ko def lieu boo xamante ni day cool am sécurité et tout moo tax ñu choisir LGI Mbao nga xam biir camp militaire la nga xam ku yëngal militaire yi <laughs> ku yëngal ku ne militaire yëngu sa kaw nga mën nga sama caméra mm-hmm. bële euh, mën bi ci 88 628 14 13 parce jeune talent la boo xam ne moom itam euh, bëgg naa ñu waxtaan léegi léegi ci phénomène bu bees bi xew mm-hmm. euh, keroog rek maa ngi ci doon lancer message moom itam mu rafetlu ko loolu loolu mm-hmm. woo ma ci gis message bi kontaan ci donc loolu dinañ ci ñëw mm-hmm. euh, bien avant sax ñuy ñuy ñuy est-ce que duñ ci ñëw léegi léegi par rapport ak li fi jot a jaar ci ay vidéo lomotif être mm-hmm. jeune nekk ci yoon di dox di wéyal sa carrière est-ce que tey il est préférable ngay daj ci yenn affaire yu mel noonu noo gisee euh, jëftin googu nga xamante ni ñu ci bari tey jugle nañ ko euh, fii ci Sénégal muy ay vidéo lomotif partager des vidéos nit yoo xamante ni nit ñi dañ koy def ñu koy partager dans les réseaux waaw loolu moom liñ ciy wax bari parce que ñun ñii di wax yow ay ndaw lañ foo xamante dañuy conseil kenn parce que ëpp ñu fi kenn expérience mais ay nit bu ñuy nekk dañuy bëggante mhm. bëggante dafa am solo ko nit ki du def carrière benn 4 ans benn 5 ans mu lay mhm. bëggal à chaque fois muy def loo xamante jël niveau bi di ko yóbbu fu kawe yow nga war ko pousse pour mu war a mën a dem vers le plan international nga war a concentré wu ci nit lu mu liggéey noonu mais yaa ngi concentré wu ci lu ñàkk fayda loo xamante lu ndaw maanaam ci li war a concentré wu mooy li DJ Kheucha di def mhm. mais pas li Cheikh xawma nangam di def loolu c'est sa vie mhm. mais nit ki da wu ci carrière professionnelle loolu la la woon mhm. concentré wu ci noonu leneen li moom la ko intéressé quoi nañ jàppalante ni fii ku fi nekk yaa ngi def yàlla baax na waxuma kenn day def waxuma man damaa def waxuma dama def ñëpp dañuy def loo xam ne chaque jour même boo tooñul nit yaa ngi tooñ suñu borom te loolu noonu bis bu génnee c'est vrai voilà ayca ñu ngi lay gërëm euh, mm. euh, ban ban affaire ñuy may avant goût avant le cinq loo xam ni dina mën a reeloo ki toog këram ni toog ñàngal wala ki toog këram doog a gis Toch en direct sur la 2STV yi nga bëgg koo bëggal lan nga koy wax avant goût bi fi ne nii ñu ci répétition yu métti <laughs> te li ñuy répété fas yéene wuñ koo laal le 5 juin. Ah. dañoo bëgg ngeen dagg tige non dina leen ci may tuuti ah, ñun moom xam ne fu ñu jaar dañuy def dara <laughs> mu gàtt gàtt waaw ñu taraxi tuuti <laughs> yàlla ah, disponible te léegi mu jeex vraiment ci nag léegi mu jeex yëpp dinañ ci waaw maanaam fa dugg see ah pour wan la ñu ngi ci répétition yi dañoo bëgg a cof lu ndaw xësa léegi léegi maa ngi koy maanaam séeréer yi mm-hmm. ni ñu mel ci mburu xësaa mu ngi bëgg a ñaaw dafa ëpp dafa ëpp dafa wala tabaski nii nii yow di nga taxaw post caaro yi gis bus yi ni koy def mburu ba ci kaw waaw dañ koy aj loolu ba xam nga ni post oh, oh, oh, jeex na man jaamu gën laa yoroo fa laa màggee yow xam nga na ñun dañuy gis mhm. loolu pour lan la xësaa seen xam séeréer yaa ngi abusé ci mburu yi euh, taata gi loxoo ma pataar ñoom ba juddoo ba ni ñuy màggee ba ni ñuy yaroo jëkk réew mi musta am jàkka de ñoom amuñ jumaa léegi benn ONG tubaab jóge kaw ga ñëw xool dëkk bi ñoom bokkuñu ñu diine déjà uh-huh. mais ñoom ñu ñëw xool réew mi ne dëkk bi ni mu doxalee nii wax dëgg fa yàlla war nañoo am juma woo paaw koñ bi yëpp dajale leen ne dañ leen bëgg tabaxal juma te yàlla rek tax paa yi rafetlu idée bi mais paa yi ne tubaab yi avant ngeen ko tabax may leen ñu tuuti ñu concerté wu ñun tamit suñu biir ñu waxtaan uh-huh. paa yi bi ñu waxtaanee seen biir ñëw taxawaat ak tubaab bi kontaan ne ko wax dëgg fa yàlla lii suñu rêve la parce que bu ñu sañoon ñun ñoo koy def ak suñu doole mais yàlla mooy ñu doole te suñuy doom tamit seen loxo jotul seen ginnaaw ba ñu war ñëw mooy taxawal juma hmm. mais ginnaaw yéen jël ngeen initiative boobu wax dëgg fa yàlla dañ leen ciy félicité di hmm. mais bu ñu sañoon ngeen defal ko boulangerie d'accord déggoo de day <laughs> dégg ba mais bu ñu sañoon ngeen defal ñu boulangerie parce que réew yàlla dogal nañ fu waaye taxaw mun nga jàpp julli hmm. fu waaye taxaw mun ngaa julli dëgg la waaye du fa la neex ngay taxaw lekk mburu ci réew mi nii ñu ne yow manqué mburu defal leen ñu ko boulangerie te yaar rek séeréer yi ñoo ngi noonu avaagu <laughs> non kii kii dafa ko séeréer yi nan nan la ko defal hmm? boulangerie ngóor ak jigaan ñoom ñaar bi ñu bokkee classe ah. di def euh, quatrième primaire hmm. ay nañ matière yëpp mais dictée xamuñ dara

fu xam nga kii nii. amul problème vaar yi capture d'écran vaar rek nga gis Alaaji Seex Omar nangam nangam kii la mu def nag ngóor ak Dijaan ñoom ñaar ay nañ matière yëpp mais dicté yàlla moo dogal xamuñu ci dara duñu ay seeluñ seen ay Dakar waale <laughs> madame bi di leen dicté ba yegg si bicyclette un bicyclette la ñu wax wala une bicyclette. <laughs> loo baax waxal rek jàpp. loo baax la jàpp ma rek en tant que seeluñ une bicyclette. jigaan bind aju ngóor sëgg na xool xool xool xamul lu muy bind. mais mu xool gis ni jigaan bind na ba aju ngóor rek ci wara a tricher woo jigaan jigaan euh, kanox ne naa ne biskelet jigaan ne ko xam nga ni ñàkk koo xam a tax ma bind vélo <laughs> bind vélo aju jàpp ko ba léegi séeréer laa lay wax xësa fi mu toll nii loolu bu ñu ko toppee duñ ci dëkk ah. dañ leen jox rendez-vous allah le 5. non joxe goo rendez parce que keroog bi nga ñëwee ci ñoom Tapha dafa am yeneen ñaar yoo fa laal te yooyu ma dàqal yi nga fii tey. ah bàyyi séeréer indi yooyu. yàlla na yàlla ci la man lu ma laal du ma ko bëgg di laalaat nag. non man loolu laa gis tey. Hmm. et puis j' j'aime ça en fait. le fait de créer et de hmm. bu bees pour nit ki lay di gis lu bees chaque jour. mais xoolal xoolal am na yu xóot yoo dencoon. non xisa man yi ma denc bari na. ndax booy bi booy bi duggoon ci bus bi rek loolu. waaw moom tamit séeréer yi ba léegi su ma neexee du ma génn séeréer yi. moom yorul paas déjà. séeréer loolu la baax na man moom fii loolu laa yàq loolu a baax na dèjà yorul paas ki ma lay wax yorul paas. Ah. jóge Kaolack war a ñibbi si fii. Mhm. dugg na ci bis bi négocier ak chauffeur bi chauffeur bi ne ko yoroo paas mais wax dëgg fa yàlla bis bi c'est limité 32 places la te ñëpp fay nañ mun ñoo yëkkati kenn. Mhm. mais mun naa la yóbbaale Dakar da ngay taxaw sama wet. munoo toog booy bi ne dina ko gérer ci ku ñu nga war a yaru. Dakar ba fan. Dakar ba Kaolack. ok oto bi daw oto bu rombee xar booy bi day yuuxu. xara ngi nii <laughs> sama papa bu oto bu dawee ba romb nag booy day yuuxuwaat. i xasaa nag a ngi nii. sa bu nekkoon nag sama yaay nekk nag sama doon nag lay doon. waaw bis bi commencé énervé ndànk ndànk ngunum ngunum mi yuuxu yi commencé ñu romb mbaam booy bi yuuxu i mbaam a ngi nii sa bu nekkoon mbaam sama yaay nekk mbaam sama juddoon mbaam laay doon ñu may jox jeunesse duma employé. foofu nag la chauffeur bi meree nag ci kaw booy bi tàkk mais nit bu réewee. xësaa boo ko dee yar da koy yar ci ndànk mais bu ko jaay ni maa la gën a réew parce ah. booy boobu koo ko xool xam ne dent na beneen réewande a garaaw mhm. chauffeur wu ci kaw booy bi yuuxu ko yow booy mënoo ñëw dimbali yow yaa nii yoroo dërëm ñëw fii négocier ak man ñu lay dimbali di la yóbbaale ngay nekk fii di koy yuuxu ci kaw nit ñi fi sama papa bu nekkoon nag sama yaay nekk nag ñan su ma juddoo na am yow sa papa bu nekkoon caga sa yaay nekk sàcc boo juddoo looy doon booy bi ne ko chauffeur bus jàpp boppam wax amaatul ba nu ñuy ñibbisee Dakar boobu di yuuxu def lu ko neex kii léegi nii chauffeur bi dawal rek ba ni ñuy arrivé ba ni dara xew ok am na apprenti bee ko gën a réew sofa bi day xuloog euh, chauffeur am apprenti bi ak kii dawal chauffeur bi si boobu chauffeur bi ñaaw na làmmiñ ñaaw làmmiñ boo xamante ni fu saaga gën a ñaawee fa la koy daggee teg ko ci deru apprenti bi apprenti bi di subir rek ah. di ko saaga ah sa moroom yëpp di liggéey ah, nga war a liggéey xamoo leen ku leen dimbali xamoo leen ku bëgg ngeen tekki mais ku leen di wax ngeen koy jaay réew nangam taanal saaga booy benn yoon la ko saaga saaga waatul boobu daf ko ne heure boo laalee frein bi rek laal nga ko sat chauffeur bi di accélérer rek <laughs> tën na ku yabaate la. oto baa ngi daw ba léegi. chauffeur bi accéléré boobu da ko ne heure boo laalee feneen rek mais bi ñu yëgsee ba sama koñ benn meer ko ne. chauffeur di nga ko ci teg nag ndax damay wàcc. xaw ma xam xaw ma xam de heure boo laalee feneen laal nga ko sa uy chauffeur bi accéléré rek ne ko du nga ko ci teg nag du nga ko ci laal de ndax man mii di wax ak yow damay wàcc fala ko mujjee laal non do da ko laal gëm rek laal ko ndeysaan saaga sa bopp loolu ak a métti saaga sa bopp lan mooy mujj avant ñuy dugg ci événement bi dimbali ma